seetlu woon ni fan yii ci ginnaaw amoon na benn gàll goo xam te ni ay ndaw xale yu ndaw ñoo ci duggoon ba teer fii ci buntu jumaa ji euh, mu am ay néew yu bëri yoo xam te ni malheureusement dañoo def ci géej gi te ci gaal boobu lañu duggoon pour dem Europe ban conseil ngay yab ci xale yi pour ñu mën a toog fii gëm ne mën nañoo toog fii liggéey ak ak ni mu métti métti métti. wax naa ko lu dul benn du ñaar si réseaux sociaux yi. samay déclaration bari na trop bés boobu euh, le 24 juillet bi passé 2023 la amoon li tax ñu retenir date bi mooy sama rakk ju ma ndex bàyyi keroog la wàcc liggéey mooy salaam góor la bu bi topp si man doomu sang bi la keroog la wàcce liggéey ñu indi koor bi fekk fa mbooloo mu bari ci tefes gi ñu ne benn gaal moo fi teer ci diggu guddi gi ay ay clandestin lañu woon jëloon gaal gi xawma lu xew ñenn ñi xamuñu géej mënuñu ndox ñenn ñi tiit nañu plongé ci biir ndox mi seen bakken des fa sapeur pompier yi di jël di yóbbu tey fi te ñaati nit on parle de mille morts c'est scandaleux à travers l'immigration clandestine bari na tey ñu des ci géej gi waa mbokk yi te li si gën a yéeme yërmande amu si man loolu moom mu gën a métti ku si faatu dañu lay jël sànni si géej gi mettez à la disposition des requins loolu lay mën a wax parce que jën yu mag yi parce que ku si gaañu dañ lay jël rek sànni ñoom ñu continuer seen voyage ana yërmande ba ana yërmande ba lu ñuy yàqamti ah lu ñuy wuti ji suñu gëmee suñu gëmee réew mi li fi yàlla def yëpp te si kanam la incha allah Mawlana Mouhamed Seyni mii may wax nii bâtisseur de la mosquée de la divinité te jumaa ji wàcc si moom am na nay révélation yu bari yu mu def yoo xam ne yaakaar naa ne ku ko gëm di nga toog doo dem parce que def ne fii Sénégal lépp a jëm yàlla décidé na pour orienter ressources yëpp vers le Sénégal incha loolu si kanam la da si teg ay conditions nag conditions yi mooy njub ragal yàlla ak sellal suñu ragalee yàlla sellal njub kon yaakaar naa ne tey seen lumière va jaillir incha allah màkk orientation la la tax màkk yàlla yóbbu fa koom-koom yëpp alayhi salaatu wasalaam mu fa tëdd moo tax dafa am ay orientation yu yàlla lay def toujours si jamono te dañ ko mën gëm la orientation bii mosquée daa la divinité orientation sur le plan la am na koy gëstu am na ñu koy seet am na ñoo xam ne ay borom baatin lañ tamit ñu koy ñu koy gëstu di ko seet mosquée de la divinité seet leen ko jaral na yàlla yàlla orienté lépp fii parce que tey orientation bi foofu la apar part la Kaaba mosquée de la divinité la macha allah loolu yàlla dogal macha allah su ko defee nag euh, j'avais donné des solutions à l'époque est-ce que doo ci ñëwaat. Hmm? Ah, kay. joxe woon naa solution à l'époque dinaa si ñëwaat solution yi ma jëkk a joxe mooy état bi si boppam jël ay matukaayam jéem a def ay barrage pour éviter xale yi di jël gaal gi loolu mën na ne loolu tamit il faut de moyens l'état l'armée de leer ne leen jox ay moyens les hélicos ñuy naaw di dem di surveiller géej gi ñu koy def naam la marine ñu jox leen l'armée de mer ñu jox leen ay moyens de contrôle si suñu zone lépp l'armée de terre kazalika noonu euh, euh, la gendarmerie la police ak les force vives de la nation lépp militaires yeeg ñëpp ñu impliqué leen def ay ay ay ay ay ay euh, euh, ay téléphone maanaam yoo xam ne tey fi tey SOS ku gis gaal gu ñuy defar nga signalé ñu ñëw loolu yëpp tey c'est des moyens yoo xam ne tey fi tey nee gaal gi fi lañ koy préparé gaal gi junduñu ko à l'extérieur di ko andi dañ koy liggéey fii ba mu paree ñu dugg si dem ku gis ñu liggéey ay gaal nga signalé leen ku gis tamit ay embarcation nocturne si digg guddi nga signalé leen parce que ay nit leen gis sans la complicité des parent parce que ñoo leen di jox xaalis ñooy jox xaalis seeni doom mais la situation de Bargny tey c' est catastrophique amatuñu ay doom ñoo ko waxal seen bopp seeni xale yëpp dinañ si géej gi plus de deux cent morts te ñoom ñoo koo si laaj tamit dañ naa euh, sa yaay mool moo dajale maas jox la nga dem waaw. mais partout partout partout partout kon donc loolu tey il faut que. il faut que ñu ñëpp ñu jàpp si ñu sensibiliser xale yi aussi wutal leen ay moyen yu ñu toogee fii c'est important aussi wutal leen am ay xëy. waaw na ay moyens nguur gi am na ay moyens yu mu. yu mhm. uh-huh. mais mais ci lajj. Ah, mu ngi noonu mu ngi mu noonu mu ngi noonu kon nag xam nga loolu yëpp tey loolu yëpp tey dafa laaj toog. kilifa diine tamit il faut que ñuy wax maa ngi interpellé samay samay kilifa diine samay kilifa lañ ndaxte ñoo mag ñii samay papa wante nañ si wax seeni seeni seeni jotaay euh, rajo yi ñu yóbbu ko si ñoom ñu wax si suñu leen déggalee ñu toog suñu leen déggalee ñu toog parce que tey lenn a fi mën a nekk xale yi ñu si ëpp jànguñu amuñu éducation jànguñu yaakaar naa ne suñu jàngoon tey ñu ubbi leen tamit ay école de formation professionnelle am na fi mais yaatal ko TFT tey dans la menuiserie am na ay débouchés yu bari l'informel am na fi ñu góorgóorlu tamit ci côté boobu ubbi ay atelier de formation artisanal ak yeneen ak yeneen am na fi buñ ko bàyyi xale il faut ñu utiliser à d'autres métiers ñu am seen métier bopp te fi tey yaakaar naa ne tey fi tey man sama frigo su paanee tey mais il faut que ma seeti un frigo frigo fils dama koy seeti ji te eh, man na métier sama gaz frigo su jeexee tamit ñoom ñoom ñoom lay oo ji ñu def ñu defar ko te xaalis la dans le bâtiment ñiy def information formation électricité tey fi tey on a besoin de ça tey chantier yu gën yu mag yi tey ils ont besoin des électriciens chantier chantier yu mag yi ils ont besoin des maçons ak yeneen ak yeneen te métier yooyu xale yi mën nañ ko def